mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu yéen ngi fii ci Mbadiar TV dina ko baaxu def altine bu ne indi leen li nga xam ne tabarakallahu moo di njëriñu garab tey nag ñu ngi leen indil ñam bi ñam bi ñam bi képp koo xam ne dangay faral di tuur ndox del faral boo xëyee nga lekk ñam bi soo ko mënee bu ngoonee nga lekk ñam bi waaw dina arrêté li nga xam ne moo di tur ndox mu bari kon tey li leen indil ñambi ci la bokk ñambi daal euh, reen bi nekk na loo xam ne tabaarakallahu am na solo lool lool lool lool lool képp koo xam itam da ngay yenn saay di néew kattan bokk na ci ngay faral di lekk ñambi te loolu akana ne mag ñi ñu baree bari yàgg nañ ko digle kon nyambi bi mi ngi nii tey ñaam leen leen indil ñaam bi képp koo xam da ngay faral tour ndox bo bari gis ngeen bi mi ngi mi bi nga di ko faral di lekk mo suba ak ngoon nekk na loo xam ne ni si tabarakallahu dafay arrêté tour ndox boobu waaw na ci solo lool lool dinaa leen faral di wax na lépp lu leen digal ci wàllu garab itam bu mu tax itam ngeen fàtte seen mbiru kër docteur ndax ku nekk sa xam-xam nañ leen ko nangul kon daal tur ndox baax na ca ñam waaw ci wàllu néew kàttan itam ñam bi dina jàppale bépp boroom kër ci wàllu néew kàttan jërë ngeen jëf seen mbokk Mbaye Ndiaye bu Mbajaar